na wan ñu ginnaaw Papa Ndoye rakki Lac Rose ndeysaan Guy, guy, Mark. ci laa lay laaj Doudou Seck bu génnee àddina te ñëpp noon diggante ak mbay Gueye ba nii muy sa mag di sa lépp ban témoignage ngay def ci Doudou Seck témoignage je pense que ne moment boo déggee ne gars yi nañu ana suma ko daa ñu ko def témoignage Doudou Seck damay répété encore ne ku mos a bëgg Mbaye Gueye ci àddina Doudou Seck dama seen musaan dimbali Doudou Seck mooy waykat bi daan way ba mu nekk mu teg micro mu ngemb su sëgg bëri daan Doudou Seck mooy ki nga xamante ne daf ñëw motivé ci mbapat di woy ba pat fu ñu seeg mosaan way farañ mos a farañ daan mos a sawar a bëri ji du mosaan toog faas dégg mu woy usine naatale ci bopp ba Bambara dañuy daw dem ba Bambara bu ko déggee Colobane fu ko dégg ci gox yooyu rek fa la ñuy parce que lamb tamit gars yi dañu war a comprendre ne du bëri rek woy bu amul bëri amul ñaari mbër dinañu bëri bëri ba të bëri ba jafe woy te ba yëkkati micro na gars yi ragalante nañu ñaari mbër yi nag fitim daje bu Seck daf ñaan daf ñaan xiital ci moom mu doon ko sonn ki làmb nag chaque dimanche moom tey jii ko bokkatee ak moom ci ko raadu ma nga dem ci kër dëgg ba ñu des fi nag ñaanal ko yàlla may ko yàlla xaaral ko àjjana man de Gris 2 na ma dëgg de Gris 2 mooy pare sonné kon yàq daa na du wax mais coach jëlal ma mo euh, coach Aly Ndiaye Mouhamed Aly Ndiaye yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko si àddina bi ci li muy yëngutu tey mu nekk entraîneur coach maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar euh, yow itam dama laaj ci Doudou Seck rek ndax doomu Sénégal nga te dégg nga li Tafa Gueye jot a wax si moom loo ñu mën a defal ci moom comme témoignage su nga Doudou ex dañ koy jàppante rek icône la ci réew mi ah. li nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp muy làmb ah. ku bëgg làmb tey di way làmb yàlla ak Wally moo tax tey je pense que ni képp kuy waykat kuy artiste di jublu ci làmb war ngaa mën a jël làmb exemple ci du dañ koy ñaanal yàlla nag yàlla yërëm te yéexe ñu te fu mu jëm gënal ko fu mu jógee parce que nit ku baax la nit ku baax la kontaan nañ si yow non maa leen gën a kontaan te liggéey bi rafet na te yow ak borom looro ah, Lamine ah. seen liggéey rafet na wax dëgg yàlla ah. yàlla na leen yàlla jàppale ay xale ngeen bëgg ngeen li ngeen di def te nangu làng je pense que làmb dafa soxla loolu ci lu mu mënti doon nag yée ci côté xeex bi yéen nag en tant que nag journaliste tey yéen a ngi animé làmb ba nga xam ni tey bu dara xewee ñëpp a koy seetaan na a seetaan te loolu c'est quelque chose yéen a ngi dimbali promoteurs yi dimbali amateurs yi ci combinaison combat et wax li ngeen xalaat uh-huh. faru leen fenn vous êtes neutre et transparent yéen yàlla na jàpp jàppale merci coach merci soose ngay wax moom waaye Lamine ngay njulli njaay yàlla na ngeen dund ak yaay sang leen wax ndeysaan wayu njulli njaay la ñaari mbër yaa ngi ca ba nga Njulli Njaay Selbe Diop Njulli naa ba ñu ne raddo mbar Njaay raddo waa boo raddu rek yi dal ay yetti kel ay yetti Dakar lañu lay dóor kan bu Bawol moom am na combat waaw waaw moo gëm a siñoor waaye Papa ci géew bi Lamine. Papa Ndoye Jackson. mujj a ki nga xam ne nii moom moo di. Laay Gota ca Thiès. a bëre ak sang. ak sang buut les tigres. Papa Ndoye jóge Fass. kii jóge Géejawaay. Géejawaay mbooloo. Géejawaay mbooloo may nuy Pape waa mbooloo de mooy doole bu dee mbooloom jàmm. mboolooy doole waaye yal na doon moom jàmm. amiin yaa mboolooy doole waaye yal doon moom jàmm. amiin yaa Papa Ndiaye. Papa Ndiaye séeri Odexia ak kan. Papa Ndiaye bari. ah boole ma ak Ndeela. ah bàyyi ko dina dal. waa xew. posal pos pos ko. ma continuer ba tey ñoo nga ca de Jackson à droite Papa Ndoye à gauche la. kon day calme kenn xamul lu mel. mbër la de. dafa mën a bëre de. mbër da yor jikko. waaye gis naa Abbas Ndoye gis Tafa Gueye gis Mohamed Ali Ndiaye mu mel ni comme daa mel ni Tafa Gueye daal wala boog xale bi. tey daa mel ni te waa ndeysaan kii mooy teer waay yaay sunu baay père yaay sunu père laat yaay ngee toog xoolal laat. laat borom le laat borom nañ moom la ñuy wax. laat borom ay waay. moo ko yor. diggante la de. mais Ndeye Gueye maa ngi koy nuyu depuis Allemagne. wat wat wat wat. Ndeye Gueye séeri Papa Boy Djiné. waaw mi ngi Allemagne instant bi waaw dañuy des fois. mu di muy ziar. di rafetlu suñu liggéey ma ak yow. dañuy déggante des fois. waaw des fois loolu dafa baax. ci dama foogoon ma nga Paris parce que stade bi Paris laa foogoon fa ah, na ma nag mu ngi Allemagne mais loo ci mën a dégg daal ziar nañ ko. ziar nañ ko Ndeye Gueye séeri Papa. waaye di jaale suñu papa Doudou Yaye Kati. di ko jaal waa Sénégal. yal na ko yàlla yërëm. xare ko aljana di jaale ki nga xam ne nii moo di Fodé Fodé ñu ngi lay jaale di jaale Siteu Fodé Fodé ndeysaan ñu koy jaal Siteu Gris bu Malika ñu ngi koy jaal waa Malika képp ku faatu yal na leen yàlla yërëm xarala aljana ari ngi wax ñoom Papa Ndoye à gauche eh Jackson à droite na combat ba de Malick Ngom lu mu wax avertissement Papa Ndoye Papa Ndoye jël na benn avertissement cey Malick moo xarañ lépp lay topp wax na dëgg arbitre soufflé na de Papa Ndoye na ko dama lay dàq mbaa dàq ko wóor na Jackson xeex na moom de Papa nga yaakaar Jackson mi Jackson Jackson la de Papa Ndoye ko sëkkatal Jackson la leen wan ginnaaw nuyu naa koy suivre Leewtoo TV ak foo mën a ne Abdoulaye Mbaye xeex moytu Papa Ndoye Jackson ndaanaan ngay am de ndaanaan ngay bëreel daw na jëli ko mu génne ko ak hyperkit oh, oh. lii du yomb de. ñaar ñu tolloo kuy dem na nga dem yóbbu lu leer de mu ngi koy dóor de daw na Papa Jackson dàq na ko laa ilaaha illallah Papa Ndoye de loo ci mën a dégg daw de est yaa ko dawloo dafa dal oh ñaari avertissement Papa Ndoye am nga bés tay de la ilaha illallah am pank la Jackson pank pire la ay ndaanaan la daan déggoo la la daan ak sang <laughs> Jackson de ko soññaa foo noonu de Papa kii billaay boo yaakaaree ni du mbër nax nga sa champion la de. daf may xaw a saf moo Lo. fu mu jógee moom Jackson Kane mu mbooloo. daw na jëli Pape Ndoye. gis nga. dina ko dóor mu daanu. gis nga li ma lay wax. Pape Ndoye Jackson dina ko dóor mu daanu. dóor na ko mu daanu. laa ilaha illallah. eh Pape Ndoye. Pape Ndoye dóor nañ la dóor mitti na. Pape Ndoye dóor nañ la dóor mitti na. daanul boppam door ba mu daanul boppam eh Jackson def na affaire Jackson def na affaire door yaa miti ta yàgg door yaa miti ta yàgg eh Jackson door yaa metti non Lamine mbër da ngay entraîné ku yaa bari ku yaa bari ku yaa moo bari bëri yàgg maar ku mu jël daa bëri kaay kaay ku yaa Jackson kaay ñu nga yóbbu arbitre ya Jackson mbër mu doy waar la kaay Jackson a ngi tëdd Jackson mbër mu doy waar la Jackson a ngi tëdd. Jackson a ngi tëdd. mbër mu doy waar la Jackson. Jackson mbër mu doy waar la. Oh, yàgg maar mar Jackson. xale bu dangereux ngi nii. noonu naa la daf may saf Modou Lo. xale bi Modou Lo laa koy xoole man. Modou xarañ Lo laa koy xoole. na ko làmb bàyyi xel. Dakar tey la woon samedi 14 décembre Jackson bu Guédiawaye ak Papa Ndoye bu Fass leen koo wax daf saf koo dóor banque la mën naa bëre mën naa xeex mu la daal ñu ne déet na waay mu teg ci sax tey gis nga li mu def bopp ñu bari foogul woon mbër du poids bu bëri déedéet mbër da ngay des mooy lamb day génnee phénomène ci côté bu ne Modou Mbaye kii ma gis waxoon naa ko ca mook bu laal mu ñëw ci sanga ma waxaat ko mu ñëwaat ci Pape Ndoye ma ne Pape Ndoye tee ngaa def ndànk daf may saf Modou Lo xale bi loo gis ci moom am na yeneen sax yoo xam ne am na yeneen dama day génn sama Jackson Papa Thiam. waaw Bulldozer. waaw nañ leen bàyyi xel ay xale la ñu ñëw. dañoo bokk si làmb ji day xale bi li mu def kenn personne ne s'attendait à ce que moom mu xeex ak Pape Ndoye. kenn du ko xaar. te tey loolu la def confirmé na indi na leneen. na gars yi bàyyi xel Jackson daanaan la de. daanaan la bàyyi naa ko xel de. bàyyi na ko xel kon bàyyi nañ ko xel di félicité waa Guédiawaye rawatina Pape Fall président école de lutte Guédiawaye mbooloo bi Jackson nekk yal na leen ndam li ji. làmba ngi noonu kuy bëre yaay daan waaye suñu papa Diouf Seck moom duñ ko mas a fàtte yàlla na ko yàlla jéggal te ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ñëpp am jàmm yàgg maar Leewtoo TV ak Babacar ak Pape Thialis du mën a ñàkk semis bi nag tey yàgg maar a fi jaar ak Modou Mané mbay yëkki ne ngeen di naa ñëpp bu ko fàtte mbay yëkki ni borom lëg lan la lan janvier jëlal le 12 janvier arène nationale loolu lay demee bég